Eh, man maanaam sama dugg si si làmb comme dugg si ay ñoom Modou Lo ñoom Balla Gaye eh, ndax maanaam man dara feesul sama bët man mbër laa ko mbër yëpp eh, ñoom Balla Gaye nu ñuy dugg see si làmb man noonu laay dugg see comme ay premier komba ay dernier komba yëpp day xaar. yee man la maay dugg si comme dugg si mbër bu mag di ñaan yàlla ndam bu rëy billaay dama am coow bu rëy si làmb man ni ma mel nu Modou Lo mel si làmb ak Balla Gaye noonu laa mel de ëppale wuñ ma benn coow soo xoolee sax soo duggee si TikTok bi wala YouTube bi man nga fay gis doo leen fa gis comme ñoom ëpp ñu ma benn coow mais dañoo ëpp moyen ñun nañu jàppale man ku ma jàppale barki yàlla ma doon champion ku ma jàppale